le Sénégal en Afrique man si dama jàpp quel que soit pays bu mu mënti doon waratuñ la ragal ci football. ak terrain buñ ko mën a footballé ak dëkk buñ ko mën a footballé parce que yor nañ les jours à l'heure actuelle parce que ñi ñuy utiliser boo leen ko seetloo ñun championnat européen bi ñuy def référence sur les grands clubs yi nekk en Europe lu mu dee am nañ fa benn jour. bu ñu jëlu coupe man jàpp naa dañoo échoué même bu ba final dañoo échoué. parce que tout simplement Sénégal moo mën ñëpp moo war a gagné ñëpp te loolu daf ko war a appliquer ci terrain bi daf ko war a ñëw prouver que statut favori da koy assumer ñëw gagné équipe bi dem. Sénégal wax dëgg yàlla bu ñu ko xoolee ci at yi weesu euh, war nañu war a mën a am capacité jël cette coupe de cette présente édition de coupe Afrique andi ko suñu réew mu nekk bànneexu ñëpp incha allahu rabbi. man si ñu daan yàgg di critiquer Aliou Cissé laa bokk ba léegi satisfaire ma parce que vu. ni muy fonctionner système yi muy utiliser peut-être moom doy na ko parce que il parvient à s'en sortir. jàpp naa ne équipe bi fi mu toll nii c'est-à-dire que euh, Boulaye Dia mi nga xam ne dañ koy utiliser comme homme de couloir dafay am problème parce que Boulaye Dia attaquant de pointe la boo ko dégalee si aile bi day am problème moo tax match suñu koy joué ci aile bi yëpp dafa am problème. non man je vois ni benn changement la war a def de ma part li ci des waru ko changer Ismaïla war a ñëw mu génne Boulaye. On a vu véritablement que euh, Famara Diédhiou, Sadio vraiment c'est un duo boo xamante d'attaque bu ñuy ak euh, Boy Pape Gueye il a un xawoon na noyé tuuti baax mais léegi en en rescoute ñu am ay poulains yi mel ni euh, Bamba Euh, Cheikh Kouyaté également c'est sûr qu'il va faire partant lui même peut-être Ismail yooyu Ismaïla Sarr qui est venu véritablement en renfort il veut dire que véritablement tous les jours ça va on a besoin de marquer pour gagner. On a besoin de flèches. Parce que nous jouons avec une équipe de Burkina Boham et jeunes. Ils ont un jeu ouvert. Quand il y aura des espaces, on a besoin de, des jours de flèches sur les ailes pour me les surprendre. Alors, Ismaël, c'est les que je ne a mën jouer le ko Boulaye parce que Boulaye avançant de pointe aussi te si qui a Là, jouer c'est parce que n'était pas là. d'abord attaque bi dañuy gagné. Boulaye indi Ismaïla Sar. mu doon trio d'attaque bi mu dem Sadio Mané dem à gauche Ismaïla Sar à droite Famara Diédhiou pointe et euh, même sax Bamba Dieng ko mën a démarrer à la place de Famara Diédhiou essayer ko jox parce que à chaque fois bu duggee mi ngi def preuve match yi mu dugg def na preuve donc pourquoi pas match bi ñu jox ko chance am mu démarrer comme attaquant de pointe. que ñu am prototype équipe bi wala prototype man je ne veux pas me lancer trop en en conjecture j'aime pas du tout euh, ñoom ñëpp daal ku ñu ci classé wax dëgg yàlla ni def départ ni def remplaçant ça va ça. et qu'on laisse travailler véritablement à l'UCIS il est là-bas avec un collège d'entraîneurs et également des gens qui ont ils étaient là-bas ils ont ils ont la pratique amène expérience Coupe d'Afrique. donc classement bi ñaari trio yooyu moo mën dem ci attaque bi Bamba Dieng Sadio Mané ak Ismaël Sarr ou bien Famara Diédhiou Sadio Mané et Ismaël Sarr milieu terrain bi mën la baña am changement donc euh, Gana Gueye Nampali ak euh, Gana Gueye nam faale man eh, match bi nak bo deful nank à la place de euh, Pape Gueye euh, kii mën na indiwaat Cheikhou Kouyaté mu mais bon toujours est-il que bu indé trois aussi c'est trois milieux défensifs je vais day création donc Pape Gueye lu mu des, des, des mën na na passe donc bon, les bi tant soit pour moom moo doon organiser jeu bi je ne pense pas que dinañ ko génne pour indi Cheikhou Kouyaté quoi d'autant plus que nous la indee trois milieux défensifs donc jeu bi doo am benn création dañuy obligé di top si défense bi di tund muy dem voilà au niveau de la défense aussi donc ligne technique, mon mon moom mooy li nga mon ne ni moo am.